Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne jamono ji mooy xalifa waa kër borom Daarul Mooti maam Thierno Birahim ànd na kilifa yu takku ñu ñëwoon fii ci Touba ci ajuma ji dëppook le 12 février 2021 doon ziyaare si sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru xalifa général des Mourides ni nga xam ne noonu la ko yoonu murit baaxoo ziyaare si ki fi nekkal sëriñ Touba daal di yeeslu jébbalaale ko mbooleem njaboot gi yépp loole la sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang def ànd kook mbooleem kilifay Daarul Muxti yi bi ñu agsee sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xuddus mi nga xam ne moo yor kàdduy njabootuk boroom Daarul Muxti gi ginnaaw bu mu présenté mbooleem délégation bi yëkkati na fa ay kàddu ci turu sëriñ bi ñuy nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di la ziyaara mm, mu mel ne mm, borom Daaru Muxti mu jël tànkam fekk si Sëriñ Tuuba mm, ziyaara boobe foofu la ko teg te uh, di sàkku yit nga nangule ko kon di la seedeel na la mboolem ñi mu bokkal borom Daaru Muxti ñëpp bunti kër yëpp jox nañ ko seen bopp ni nga xam ne moom la yoon wi baaxoo mooy jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira nee na noonu ñu ko defee nag wëlbatiku na defaat ko ci yow noonu wax la la nga xam ne moom la ñëppi wax mooy jëbbal na la boppam jëbbal la njabootu borom Daaru Muxti gépp ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li war euh, xat na sax waaye dafa wax ne ndegam ñëpp a ngi ñëw ci yow di def noonu la baax yow itam nga dem def ko fa nga ko war a def mooy tax sam xel mën a dal loolu rek moo tax fan yëpp mu xawoon na yàkkamtee ñëw waaye xam na ne xataay ak euh, fatu gi waaye rek nangul gi nga ko nangul loolu rek am na lu muy wane wane na la fi nekkoon rek moo fi nekk ba tey nee na nag ñëpp daal na nga leen faggul li nga xam ne moom la ñuy wut ci loolu ñu am ko tey ak ëllëg maanaam loolu nga ma wax li ñu bëgg kenn ku ci ne nañ ko am ni ko bëggee ci àdduna ak ci àllaaxira tey Euh, noonu wax ne borom daaru Muxti mu ñëw ci Serigne Touba yaakaar ne jataay ba euh, li mu wax ne euh, dëgg la mm, daanaka buntu kër yëpp li ci teew nañu waaye ku ca ku nekk it ci coobareem la ko defee ndax jataay bi nu mu bindoo ak fi jamono toll ci xataay waaye nee na su ko ko yàlla maye may nu ko muñ toogee ba yoon bi yaatu danañu dikki wa dikkin woo xam ne fu waay nekk di doomi borom di di eh, sëtti borom daaru wala ngay doomi borom daaru moo te wala nga bokk ci kër yu mag yi dana ñu ànd seen siyaare bopp boo xam ne dañuy xam ne nii la waa Daarul Muxti war a ñëwee ci kër Serigne Touba loolu nag dañuy ñaan rek da nga ñaan yàlla sunu boroom yoon wi yomb ba loola mën a am. ñoo koy ñaan. Mm. Mm. ndax bu ko neexee kat mu da ko mm. mm-hmm. na dafa am loo xam ne la koy sas moom bu ko sañee wax mm. dafa nee na nee na bu la neexee jàngoro ji li nga xam ne moo tax nu ñëpp nu mm-hmm. ub suñ gimiñ yëg suñ bakkan yi mm-hmm. kenn ko ne masqué ko nee na <laughs> nga ñaan ci barke sëriñ bi daal nee na mu jóge fii ba faw waaw te it gëm na ne moom loolu lu mën a nekk la ñu mm, ko yàlla def baax na nee na loolu daal moo doonoon yoon wi ngir xamal ne daal dikk na ngir jëbbal si la boppam ak njabootu borom daaru muuti gépp te nga nangul nu ko ginnaaw boo ko ko nangulee moom itam te loolu mooy li nga xam ne mooy li am waaw ñaan ba nga xam ne itam nag nii mu ko bëggee bis buñ jógaatee eh, kenn du des waaw gàllankoor yëpp jóge fi yoon bi yaatu ñu mën a ñëw ñu xam ne lii mooy li taxaw muy taxaw yoon wi te nii rek la daan ginnaaw kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khoudous yi nga xam ne yëkkati na ko ci turu sëriñ Bassirou Mbacke Anta Niang Serigne Mountakha Mbacke Bassirou yëkkati nay kàddu santaat leen gërëm leen. waaye rafetlu tànk yi nga xam ne yëkkati nañ ko bàyyeekoo ca Daarul Muhti ñëw fii ci Touba mu nekk lool kawe na ci moom lool waaye ñaanal xalifa bi di sëriñ basiiru Mbacke Anta Niang mu yàgg fi lool ñu ànd liggéeyal Serigne Touba. alhamdulilah rabbil sant bu baax a baax a bi day wax alhamdulilah rabbil alamin mu ne bu baax a sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. mu sant sunu borom mi nu bi. di sant sunu lépp tey ak ëllëg. di sant bi muy sunu lépp tey ak eh, ngi sant bu baax ci eh, yëg gii nga xam ne eh, gis naa ko ci. Cheikh Mouhamadou Bachir mii ak ñi mu bokk bu baax yi mu àndal. mu ne mi ngi sant bu baax ci yëg yi nga xam ne gis na ko ci Cheikh Mouhamadou Bachir mii ak bokk yi mu àndal. xam na ne dañoo delloo lépp ci diggante sëriñ bi ak maam Thierno rek. na xam na ne dañoo delloo lépp rek diggante sëriñ bi ak maam Thierno. loolu nag noonu rek la mën a demee. fi ñoom noonu rek la mën a demee fi maam. mais loolu nag noonu rek la mën a demee fi ñoom. noonu rek la mën a demee fi moom itam moom sëriñ bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin eh, ñun loolu moo nekk ci ñun muy sëriñ bi nee na loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñëpp loolu moo nekk fi kon eh, noo ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax a baax nee kon mi ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax di gën yeesal sama jaayante di leen ko seereel di ko seereel muy gën a yeesal ak jaayanteem te di leen ko seereel hmm. di gën dëgër li sama laxasaay fas yéene ko ànd ak yéen sax dàkk ci li nu fi nu nekkoon nun ñëpp muy jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi rek mais ne gës gën a xam ne naka jekk ci mooy jaamu yàlla ak delloo suñu xel ci maam Thierno rek. nee na loolu nag bu ñu xel ci maam Thierno. mu doy mu doy sëkk. mu doy sëkk. dana koy wax. danaa koy wax. nee na dana koy wax. sëriñ bi moom say xel xel xel xel di ci di di ca dem. dañuy wax ne sëriñ bi moom jërul xel di ca dem. waaye maam maam na mooy ki nga xam ne. waaye maam Thierno mooy ki nga xam ne. doy na lépp. doy nañu lépp. lu nu bëgg ci sëriñ bi rek. lu nu bëgg ci sëriñ bi. ak lu nu ci lu ak lu nu ciy wut. ak lu nu ciy wut. Euh, maam Thierno doy nañu ci sëkk. nee na maam Thierno doy nañu ci sëkk. moom moo dox ki nga xam mooy ki ne moo dox suñu diggante ak sëriñ bi. nee na moom mooy ki nga xam ne moo dox suñu diggante ak sëriñ bi. ndax li sëriñ bi bëgg ci noonu. ndax li sëriñ bi bëgg ci noonu. da koo tënk ci maam Thierno. da koo tënk ci maam Thierno. kon moom maam rek. nee na kon maam Thierno rek. mooy moo moo moo moom rek la su xol suñu xol moom la moom lay gis. nee kon maam rek suñu xol di gis. sunu sunu bët di jàkkaarloog moom. sunuy bët di jàkkaarloog moom. sunu ñu delloo ko ci. sunu yitte yëpp ñu delloo jublu gépp ñu delloo ko ci moom. sunu jublu gépp ñu delloo ko moom. moo war a doon sunu lépp. nee na moom moo war a doon sunu lépp. ndax ci la ci ci bëgg ci noonu ndax li sëriñ bëgg ci moom. da koo tënk ci sëriñ ci maam Thierno. da koo tënk ci maam Thierno. loolu man xam moom alhamdulilah rabbil alamin. Eh, loolu moom alhamdulilah loolu am na teel na ma am tawfiqam. nee na teel na am tawfiqam. Eh, yaakaar naa ne Cheikh Mahamadou Bachir mii. nee na yaakaar naa ne Cheikh Mahamadou Bachir mii ñàkkul lu mu xam ci ma sama diggante ak maam Thierno. lépp lu mu xam ci diggante maam Thierno. déedéet eh, ñàkkul. ñàkkul ñàkkul lu mu xam ci lu mu xam ci diggante. sëñ sëñ Bass xam na diggante sëñ Mountakha ak maam Thierno. Mm. ñàkkul lu mu ci xam ñàkkul lu mu ci xam ndax loolu mooy kon danañ ci waxtaan ah, ah, ah. dañuy wedd loolu kon na ñàkkul lu mu ci xam lu ci xam ndax eh, am na lu ma lu ma tënkoon ci sama taabirub sama xalaati bopp rek loo xam ne noonu nii ma ko waxe noonu noonu noonu laa ko tënkee nee tënkoon ci ay xalaati mm-hmm. xam ne lii mu wax mm-hmm. noonu la tënkee xalaat yooyu noonu rek laa ko tënkee noonu rek kon mm, man wax eh, seen jéego yi ak seen jataay bi mënu ma ko wax mënu ma wax na mu toll ci man. nee kon seen jataay bi ak seen jéego yii mënta wax ci làmmiñam di mu toll ci xolam. waaye nag yàlla moom mi ko def xam na ko waaye moom yàlla mi ko def nag xam na sëñ Tuubaa mi tax mu def ko it xam na ko sëñ Tuubaa mi tax mu def ko it xam na waaye nag maa ngi leen ko seeral man it sama kam kattan naan waaye mi ngi leen ko seeral kam kattanam ngeen xam ne seen jéego yii ngeen xam ne seen jéego yii ngeen jógee daaru daaru moxti ba fii ngeen jógee daaru moxti ba fii ak seen jataay bii ak jataay bii lu rëy ci man la nee na lu rëy ci moom la lenn mënatu la mën a mën a mën mënatu ko kawe ci man nee na dara mënatu ko kawe ci moom ndax ndax mooy li nga xam ne ndax mooy li nga xam ne moom moom moom moom moom moom soññ. moo koy soññ li ma tax a jóg. li ko tax seen seen jëf jii seen jëf ji moom rek moo ci moo moo amul amul benn soññ bu ko bu jiitu boo mën a soññ sama bopp bu jiitu seen jataay bi ak seen. nee benn soññ bu mën a jiitu. bu mën a soññee boppam du jiitu seen jotaay bii. loolu rek mooy li mooy mooy dëgg ci man. loolu rek mooy li dëgg ci moom. ngeen jëf. nee jërë eh, gis gis naa jëf ji bu baax a baax. nee baax a baax. fa tabaarakallaahu rëy na ci man lool. fa tabaarakallaahu rëy na ci moom lool. te muy dëgg ci man. te muy dëgg ci moom. loolu duma ko seeral kudul suñu borom mi nga xam ne moo ko def. nee na du ko seeral kudul suñu borom mi nga xam ne moo ko def. ak Serigne Touba mi nga xam ne moo tax mu def ko. ak Serigne Touba mi nga xam ne moo tax mu def ko. di leen ko seeral itam ne leen xam xam nii ma ko waxee rek la demee ci man. di leen ko seeral yéen itam ngeen xam ne nii ma ko waxee rek la demee ci man. waaw te positif yi nga bi nga xam ne moom ngeen jógee daaral moo wax tey ak jéego yi ngeen dox ba ak si fii ak jataay bi loolu rëy na ci man loolu. dara dara dara mënu ko kawe ci man. parce que bi ngeen jataay bi. nee rëy na ci moom lool. dara mënu ko féete dara benn amul benn yaakaar itam boo xam ne mën naa tegu ci kawam. nee amul benn yaakaar itam boo xam ne naa tegu ci kawam. te li ma li li li nga xam ne moo tax dund. nga xam ne moo ko tax a jóg dara loo xam ne benn yaakaar boo xam ne ëpp na ci man. ëpp na yaakaar ji ma am ci yéen ci yéen ci yitte ji amul amu amu ko. mu amul jënd yaakaar yoo xam ne. ëpp na yaakaar ci yaakaar ji mu am ci ci seen yitte ji. kon du wax sax sama sedd na loolu moom gàtt na ci. nee sedd na. waaye sama xel dal na bu baax a a baax. Eh, eh, soññu gi gi war ci man. dana am na ko ci jëf mooy li ci am cig fàttali sëriñ bi dafa fatu woon waaye ki nga xam ne moom moo di sëriñ Basiru Anta Ñang yàgg a sàkku ñëw ziare si ko jëbbal ko njabootug borom daarul mu ati gépp loole nag sëriñ bi nangul ko ko ndax dafa bokk ci yoonu murit képp koo xam ne doon nga xalifa ñëw ci ki fi nekkal sëriñ Touba daal di yeeslu ci moom jëbbal ko njaboot gi yépp sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ nag moo nekk jamono bi xalifa borom Daarul Muxti ginnaaw bi fi sëriñ Abbas bàyyeekoo ci 31 décembre 2020 bi ñu koy ñaanalaat yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér.